Euh, ci lii xew fi nii heureusement ba président Khalifa wax na ko ne mbir mi nekkul sa problème mu mais dafa mujj romb problème mu mais liste yi tamit mënuñu ko ote mënuñu ko tëb ci wax ji dem li tax ma wax loolu nag ñun si élection locale yi Géejawaay ñu nuy waa banlieue bi yëpp ak waa Cap-Vert Géejawaay dañu toog ba ñu xëy nañu seen liste suppléant yi ville yeewi woo suñu mandataire di moor Diaw bu grand parti ne ko seen liste bi ñëw leen ngeen mottali ko parce que su matulee du mën a dem ñu jox ñu notification ñu ñëw mottali liste ba préfet ñu ne lii titulaire mënta dem sans suppléant ñu ñëw mottali c'est la loi ñu toog ba ci yàgg man c'était hors de Dakar ñu woo ñu ñu liste yeewee askan wi commune Sam Notaire ak commune bu Golf sous préfet rejeté na ko ma départ daw si ñëpp a dem cour d'appel ñëpp yóbbu seeni préfet ba mu des ñun man Ahmed Aidara keroog dama ne affaire bi nan la demee waaye yi fa nekkoon ñoom Khadija Mahécor nañu dañ fee toog ba guddi le sous préfet demandé ñu ne ñu dem leen ngeen ñibbi ba suba ngeen ñëw mottali parce que da fi yàgg ils étaient six ñëpp dem ci ëllëg si ñu ñëw ñëpp ñu jox leen possibilité ñu mottali waaye yeewi ñëw ñu leen yéen toog leen ne man Sam Notaire laay milité fa laa dëkk golf nag ñoom ki ñu fa toogoon du gañe ñun ñu wax loolu ñu ne ñu yéen doo leen bokk parce que seen suppléant yi amul dem leen toog doo leen mottali te liste yi il faut euh, euh, euh, majoritaire ak suppléant yi il faut lépp mat amul ay bii nii bii lee ma dem ba ci kaw fekk fa le sous-préfet d'ailleurs bi affaire bi jàllee sax la ko Macky Sall yóbbu ginnaaw Tambacounda dañ koo affecté ma ñëw ne ko suñu liste liñ may expliquer nu mu demee SEDA bi fa nekk nangu ne c'est nous qui avions demandé ma ne ko qui est nous mu ne ma la commission ma ne ko elle est composée de qui et de qui mu ne ma ñun SEDA le préfet lii mooy commission c'est nous qui avions demandé au mandataire de rentrer ba ci ëllëg si ñu dellu si waat mais bi ñu ñëwee nag ah ñun de nous sommes pour ñëpp bind mais nag kii moo opposé wu di la commandement territorial ma ne ko par force neex naqari ñun dinañ bind suñ liste duñ dem cour d'appel duñ kalaame fii lañ koy réglé muy def fo ñu def dëgg envahir feu ñun na géejawaay lañ dëkk ñun fa lañ dëkk ñun ba pare dëkkuñ fa ñëw dëkk ay Dakar nii de fa la ñuy yeewoo deux jours par force mu mujj taxaw nañu waa garaawul kaay leen ngeen mottali parce que suppléant yi mënul ñàkk waa mais ñun koy dund nañ loolu tey ñu ñëw Macky Sall bëgg ñoo gëmloo nañu liste si élection majoritaire mën na toog suppléant dem fële tamit titulaire mën na mën na toog euh, euh, suppléant dem fee tamit suppléant mën na toog titulaire dem commandement territorial yi benn la ministre bi fi nekkoon moo fi ne ba tey dara changé wul préfet ñoo fi ne ñu bëgg loolu jàll nit ñi ne nag dañuy dem pour wane ne lii du jàll tey du jàll ëllëg ay code waxuñu ko ak arrêté ministériel ndeyu loi yi mooy constitution moo wax ne képp koo xam ne am nga lu la miti ñëwal nga taxaw fii pacifiquement waaye yow yëglul rek waxal la président de la conférence des leaders ne ko ñun dañoo bëgg a organiser nangam mu ne ah mais sa yaay ay datam day organiser bu dajee affaire yi kon mën na bañ a am bës ma ne xaaral ba bu sama yaay bu paree ma doog a def lii mooy njariñu préfet ak sous préfet ci autorisation yi de tàggoo la pour ñu xool ba xam dëj am na fa wala amu fa barki dee ma nee nañ foire moo fa ne la fa ne matul ñaari mbaar mënoon lañ leen jël sa aj leen ci kaw terrasse bi nekkoon foofu ñun ñu doxal loolay dëgg président Sonko génne na vrai ñu ne ñu du am cartum réew mi moo ko mayee par force na ñun moom danoo dem avec ou sans autorisation dañuy dem te gis nga Abbas fii yàlla moo fi ne subhaanahu wa ñi fi nekk la ay non boo géré mairie te àndoog état c'est archi faux le peuple est souverain gars yi ay milliards la ñu yor teg ko ñu teg ay rakku Macky ak ay doomu Macky Sall population bi ne leen yow mii Ahmed yaa ñu gënal kii ak ay milliaram dara defuñ ko fa ngay tiit di pat pati il faut coopérer ñenn ñi di jaay ay mandat su yàlla dogalee ñu am majorité te dinañ ko am loi bi ñu soppi woon ci député yi dinañ ko soppi ci mairie yi nga xam ne yow doo am ñaari nit nga dugg ci biir coalition liggéeyoo dara ñu lijjanti ba nga doon maire Macky Sall bëgg a déstabiliser cette dynamique ay maire ñii ay ay centre commercial su yàlla dogalee ñu am majorité te dinañ ko am loi bi ñu soppi woon ci député yi dinañ ko soppi ci mairie yi nga xam ne yow doo am ñaari nit nga dugg ci biir coalition liggéeyoo dara ñu lijjanti ba nga doon maire Macky Sall bëgg a déstabiliser cette dynamique muy woo ay maire ñii ay ay centre commercial maire bu vision mu yeggul ci centre commercial mais kooku nooy defaree dëkk stade ba doo ko defar doo taal lampe doo def dara ñu lay dig ay centre commercial ak ay nangam sax te moom ku ko xam ku ne xam ne vision bu gàtt bi Idrissa Seck wax ne jam ñaajo la yem jam ñaajo sax dafa sori de daf fekkoon Ablaye Wade préparé woon jam ñaajo ba pare ñu ne ko suuf si baaxul mu dem mais moom il faut mu insister moo indi problème mu gazon yi tey fële na le stade ba day yàqu Ablaye Wade boo demee sa moo tax mu tuddee ko xam na ne stade du yàgg kon dañuy dem da koy sabote rek xam nga moom day passé tout son temps di sabote Ablaye Wade mais waa PDS ñoom ñoo ko may ñu jógee foofu ñëw ci forfaiture bii bu mujj la ndax ginaar waxaale sa soxla président Macky Sall nit ñi dañuy créer ay emploi muy créer ay chômeur jël ay doomi réew yi ku àndul ak moom mu ne la dootoo xëy président Sonko la ko njëkkee te boo demee sax xam naa moo siiw de parce que moom dafa am tur boo demee ñu bëree bëri liquidé nañ leen ci service yi ku àndul ak ñoom nekk ci administration dinañ politique par force boo gañewul delloo ma sama yëf inspecteur yëpp def na leen politicien kii di inspecteur mu ne ko doo ko fi defee Mame Boye Diao di inspecteur mu ne ko na neex Bengelloune di mu ne ko politigal Euh, Habib Niamé chaque jour ñu bind ko ci journaux muy politique mu ne ko baax na mais bu dee keneen la mu ne ko doo ko fi defee capitaine Touré def enquête leer na ak leerul mu ne na fi jógee waa ji nekkoon fii nii Sen TV daan def revue de presse ba waa jooju da ko doon saraxu deux mille sept deux mille sept Macky Sall di dugg biir Touba beneen borom musóor boo xam ne tey daa ànd ak moom ne ko doo fi jaar ay dambóoj mii ne ko doo àbb hélicoptère soo jaarul fii dugg biir Touba ma démissionné mu naan ko waxal ak Ahmed mais di nga booy boobu RFM nii kii mënul ñàkk fii ma démissionné mu may saraxu ma ko ba ma am beneen rajo diggante bi xëju fi bul démissionné nekk à l'intérieur du pays c'est ce Macky Sall mooy ànd tey ak ay nit parce que bokkuma ak moom position wala gis-gis ne waa ji il faut l'éliminer fàtte na yàlla moo tax muy def yii muy def PDS cent cinquante députés lañ ne la doo ko jiite yàlla ne la dinaa def nga jiite dix-sept million de sénégalais nga ne ma du ma wax rek ci kanamu caméra yàlla ne kaay ma dénk la askan te sa rakk ci boppam la mbër mi di laal li teg ko ne coowal mars bi jëleewu ci benn leçon day sóob rek taxaw naa non j'ai entendu l'appel de la jeunesse entendrul dara nguuram gi ne ci mbedd bi ci kaw autoroute bi la ko jëmu ju tedd ji fekk jël ko indi ko récupérer ko indi waat ko teg ko ci seizième ne ko toogal mu toog mu joxaat ko sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg nguur gaa woon ca mbedd ma fii ay ragal newuñu fi ñuy woo nag képp koo xam ne da dëkk banlieue ñun réunion nañ démb sax publier nañ ko banlieue laa wax képp ku fa dëgg rawatina géejawaay gi ma dëkk demain place de la nation incha allahu rabbi il faut montrer à Macky Sall que réew mi moomu ko te Macky Sall tam ñu ngi koy ñaan mu toog pacifique la parce que moom day dem il paraît que day demaat ci Macron toogal gars yi duñ riir ñëw soxlawuñ marché ci ay cadavre pour jël palais c'est un pouvoir finissant yow sa nguur moo jeex ñi ngi woo ñëpp Mali barki démb bi mu wootee ñëpp a ñëw le mandat de trop boobu moom duma ci wax parce que comme que moom nee na nii wii nii non man moom dama naan non ñu lay laaj njiitum réew nga war di dëj sa wax kilifa waxam day dëju dëjoo ko sax sa wax ji di naaw ni xob kenn xamul fi mu nekk ni yow foo féete nga naan nii wii nii non dem fële encore naan doyalaguma fii ku faatu même boo amee téeméeri at bàyyi fi mëbët ku dee bàyyi fi mëbët laa la wax na yàlla xam ne nguur goo gis day jeex man de fa ma doon liggéeyee maag waa ji bokk ñu bokk gis gis-gis fu ñu ma mës a laajee ne ma ndax yaa ngi ma ànd ma ne ànduma ak moom yeewi laa point am mouvement bu ñu naan géejawaay laa bokk point faruma moom falaay ne di wax di liggéey un contrat professionnel moo ñu lié bu weeru dee mu fay ma mu dox ma dox point loolu yàlla la ñuy woo sénégalais yëpp nag ñuy tiitalaate noonu di wax naan ay xaw ma seen doom yi dee diine joo fi gis laa la wax pour mu am li mu am tey ba ñun ñu toog fii def suñu jàkka yi kilim ko ba mu sedd guy ay bakkan a rot ca Uhud rot ca Badar rot rot rot rot te ñoo ñooñu gënoon jege yàlla fop te danoo xare ba dee foofu la réew mi toll Macky Sall mi il faut nit ñi jóg jàkkaarloog moom di kilifa diine yi wax nañ bay bëgg dee yaay gis nga ñooñu di wax naan kilifa diine yi nañu wax nañu wax wax nañ parce que ñoom ay régulateurs sociaux lañ ba pare léegi léeg sax dañ lay cax ku ñëw ñu ñaanal la mais xayaar ku dégg séeréer mais koo xam ne yow seer nga dañ lay cax bay bëgg a dee mais dara boo jógee dem delluwaat ca la nga nekkoon ñun daal ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw suba le huit la marche et autorisée autorisé nañ ko par la loi ndeyu loi yi moo ne marche bi suba waaw mooy l'info du jour sax comme ça ma joxaale ko Sénégalais yëpp ñu xam ne marche bi autorisé nañ ko pour fu waay nekk nga dox ndànk ñëw place de la nation du am benn problème du am coow ñu ñëw taxaw fa woon Macky Sall ne ko majorité sénégale yaa ngi nii yow nee nga yow yaay majorité yaa am doole yaay roi des arènes te yow yaay tànn bis bu nekk ñi nga war a bëreel mais kon an sa doole Ablaye Wade dee ak lu ko waaye mën a wax bañ ca tolloo danaan jàkk jaa ngi ku mën a nodd noddal Abdou Diouf kasaalika mais yow dépp ba nga toogee ba léegi nee nga yow élection yi ngay dem yëpp yow yaay taamu ñi nga war a demal ñenn ñi sax da ak ñoom dil ay opposant ci biir opposition bi ni da ngay saf yàpp wala nga saf jën laa la wax ñin nag ànduñook ñoo sàll Sall comme ni yenn journalistes yi jëlee position na ñoom ils soutiennent Macky man de mereew ma leen waaye ni leen ko Macky nangulee nag ba tax ñu yor seen télé ak seen rajo seen i quotidien di dóor waaye nañ ko nangul ñi nga xam ne taskatu xabaar lañ te ànduñoo ak Macky ñin ànduñoo ak Macky allahumma salli ala sayyidina muhammad wa Mamouna Merci beaucoup, Président. Asalaamaaleykum.